lan bikum ki fi jiite woon kërug wota gi Dakar dem dikk dàq dàq nanu ko kajji nanu ko football nanu ko allah vox populi moo ñu ko xamal turbine yéene kaay na ko maître Moussa jóob la tudd Macky seppi na ko si du quotidien ne waa lan la def wala lan la wax ba tax ñu kajji ko dàq ko gaa ñi leeraluñ ko te moom nag xamal na ay jéego yu am solo ca dakaar dem dikk laas yéene kaay na ko xëy xanaa yow yëgooli xew ñetteelu mandat bi mu wax na Macky amul sañ-sañ def ko te loolu coup d'état la moo tax ñu kajj ko critique yéene kaay dëggal ko na ko troisième mandat baa ko yóbbu turbine yéene kaay na ko terminus ba fa la ko gaare di wax loo xamante ne kenn fa ko ñemewut a wax ñetteelu mandat <laughs> yow fa ngay fontu donte sax am na ñu ko fi wax Macky dàqut leen waaye ñooñu la ñu wax mooy ne Macky war naa am troisième mandat ñoom Mbaye Ndiaye ak Bougazeli réew mi yéen a kaay dëggal ko na ko Sori Kaba fa ne Macky war tam ñetteelu mandat ñu tiire ko simet mu génn Moustapha Diakhaté wax na ñetteelu mandat jaadu du yoon ñu tiire ko Koufran kat ji mu génn maître Moussa Diop mii nag mooy ñetteel boo xam ne fañ ko tiire corner mu génn terrain bi direct news ne hëy def leen ndànk gis ngeen maître Moussa Diop mii li mu wax ñetteelu mandat ñu dàq ko de moom diggante moo Macky presque ñetti weer a ngi nii neexut l'observateur na ko ma yokkal la ci nam yoree Dakar dem dikk ci wàllu koppar baaxul sant yàlla ay jafe-jafe yu du xaaj jeex a faam léegi na bi mu xamee ne carte gi nar naa jaxasoo fañ ko nar a dàq tax mu dem wax ci ñetteelu mandat bi naan Macky waru ko am ak dugg na fi génn na fële ngir ñu kajj ko dàq su boobaa nag mu taxaw layee ñetteelu mandat bi lii rek la de direct news na ko ah kon kii fa a nax Macky ko jaay xeew Macky ko fii ngund du fi naa nañ ya moom nday loo xam ci kajj biñ la kajji mu ne ndax juróom benn junni xat wóolu na ma ci Dakar dem dikk liggéeyal naa fa sénégalais Dakar Times mel ni ku naan ko soo liggéeyal lu baax kay duñ la sanctionné ki ko remplacé nag mooy Omar Ben Boun Khattab Sylla ab magistrat bu yëngatu ci politique dëkk ca diwaanu Louga moom la Macky fal ca Dakar dem dikk nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne njiital chambre de commerce bu Ndakaaru Ablaye Sow wax na sëriñ bu boppam teg na ko palaasam réglé na ko ni montoor ayaw seetal Ablaye Sow nee na fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février ba léegi sëriñ bu njiital chambre de commerce bu Kaolack mi ngi attaqué di ma yàq lu ne waaye ñun ñu bañ na duñ ko tontu lu ëpp nag tuuru tey leeral sénégalais yi li tax sëriñ buub énalement di ma attaqué gis ngeen xaalis bi nekk fii chambre de bu ndakaaru sëriñ buub fa waxoon na daal fañ ko war a séddale mbooleem chambre yi ci sénégal te loolu mës ta am ma ne ko maa bañ ñu ne déete waxoon na fi mbiru poste pour jiite fii te boobu jamono moom ma nga jiite chambre de commerce bu Kaolack loolu xel fa ko nangu ba tax info yéen a kaay a jaxase andi jiixi jaaxa ca chambre de tey ne ay xalu safara moom la gaa ñi sotti ci kaw sëriñ bu tur ñu ray ko de tontu yi saf sàpp te yemuñ fa neneen ñi ngi xalaat ne fañ koy porte plainte yóbbu ko ci yoon ndax fa leen a waxal loo xam ne defuñu ko nay leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne examen baccalauréat yi tàmbali nañ ko démb Sénégal diwaanu Pikine nag centre ba doon defee bac ba fañ koo dajji xam yuñ fa sàcc maanaam ca bureau principal ba yéene kaay bi ne foofu nag fa leen dencoon saf na safut nemmeeku nañ nag élèves yu bëri ñëwuñ def si bac candidat libre nag ñoo ci ëpp ñaari candidat ya def lu ëpp nag mooy fañ doon sàcc tricher ci bac bi ñu teg leen loxo ca diiwaanu ndakaaru kenn ki diiwaanu Thiès l'observateur moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom les écoles yéene kaay mooy hôtel ba ñuy wax King Fahd Place ña nga ca ay jafe-jafe de liggéeykat ya ñu bëri si ñoom fayeekuwuñu Véronique Ndour di syndicaliste ma yuux wàllu a dimbale jox ñu mottali ko mooy réewum France badd ak pidd nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Diène Farba Sarr nee na digganteem ak Abdou Karim Fofana dara nekkul ca amuñ benn problème ñuy wax fa ñuy ratatati rek xamuñu li ñuy wax kàddoom yaa ngi ci l'évidence yéen a kaay réew mi yéen a kaay di ñu xamal ne réewu Mali ka fa nekkoon jiiti réew ma te ñu foqarti nguur ga IBK ma nga ca diggante dund ak dee malaise la am ma nga hôpital fa feebar l'observateur moom di ñu xamal ne njiiti réew Macky Sall remaniement dàq ay ministre andi yeneen bi mu nar a xamal si ñoom fa ñoo a doxalee nag ko def de enquête yéen a kaay waa élection locale yi bu fekkee fañ koy toxal diggante nguur gi ak ku jigi kan la arrangé vox di ñu xamal xab xale lu góor bu am ñaar fukki at ñaar yàlla ji moo doon taw miir ba daanu ca kawam mu doxee fa faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca Cambérène Ndakaaru l'évidence yéen a kaay di ñu xamal la amee ca diiwaanu Louga nag mooy benn xale taalibe bu am fukki at ak ñeent fa bàyyi ba guddi courant coupé mu a a seetaan benn sëriñ ci télé bi mu naan maa mën lii joxe numéro téléphone am ndaw sa jël ko waaye xam ngeen kooku di wax na sëriñ la fan la mu ak moom fa koo mujj nax di ko ronqi ba yóbbu ci moom ñetti million allah ndaw saa ngay jooy maaqàllaa jigéen ñi fa ngeen a ñeme sëriñ liggéeyal ma diw defal ma laa sama jëkkër sama wujji nii ah moo taxit yow de xay xenu na la beneen soxna bu xay xenu dëgg nag mooy soxna soo xam ne fa xam doom bu jigéen bu am fu ak juróom-ñeent doom ja am far far wa hëmbal ko mu hëmb ba am juróom benn weer yaay ja jàpp doom ju jigéen ja fa koo ba mu faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca Bambey yaay ja Awa Juuf la tudd takkadéri teg nañ ko loxo ca diiwaanu sali yow sa doom ji moo la tane ndax moom fañ ko hëmbal rek yow nag nga ray ko ba pare ray la mu hëmb ñaari bakkan xana lu ko fi jar gàcce gi xam-xam na ba noppi bala maa noppi nag man ma wax leen li la Soleil yéen a kaay xëy seetlu Sénégal a yow seetal boroom kër yu bëri ñu takkee ñaareel fa ñuy xam problème ngir wax ko seen aawa fa ñoo ragal kenn xamul leen jàpp ba ku ci sa aawa pour nga wax ko na ko takk naa ñaareel danga ko waaj waajaat ko xam na si sax ñoo xam ne fa ñu yónni sax seen xarit amee ma wax la ni ngeen koy waxee ay yow sama soxna aawa buuru këram baax nga yaatu nga muñal nga ma jig nga ma waaye liggéey bi ci kër gi moo bari moo tax utal naa la rakk ñaareel manqué wu ma dara de te lislaam fa koo daganal waaye su fekkee fa nga ko waxoon nag duma la mës a takkal ñaareel su boobaa tiisuma la mbaaw de xam naa ne xam na naan li may jàngale nii lan moo ma ko teree def waaye maa gisagul rek